Marwanya ak marlo ci ben lañu ben bop lañu ken mënu ñoo xar ñaar wa wanje dañuy xëy marlo ci xej na ñun sañu ñoo am tuuti euh, gàllankoor duñu ñëw euh, wanje lu bari mais toujours wa wanje ñu ngi fi euh, marlo ci jafe-jafe yu ñu am moy jafé jafe-jafe walu transport bi ndax gis nañu pont bi nu mu mel te jigen yi ñoo ci gëna impacté ndax ñoom dañuy ëmb di wasin dañuy jaay jën chaque jour dañuy indi seen jën marlooj di ko jaay foofu la ñuy ndugee foofu la ñuy defee kon bu pont bi melee nii ñu ciy jànkonte ay jafe-jafe yu bëri kon dafa mel ni comme ñun tamit dañ ci bokk en tant que jigéen lu ñuy yaakaar ne moom mooy saafara parce que pont bi ñoom ñoo ko créer seen bopp ñoom ñoo koy initier defar ka mais lu ñuy sàkku mooy ndimbal nguur gi gëstu leen xam ne ay nit ñoo dëkk fii ñu jàppale leen ba seen pont bi mun a doon pont